ma wo bara Sankhare mu ngi may déggaat waxaguma sa mu ne ma oh Guèye sois patient ñun police ñu koy rechercher j'ai déployé tous les moyens mané ko waa déglul mu ne ma ah, mané ko feeñ na ma ko numu démé demee mu ne ma suñu ay mbokk laayeen fa la ne def fa une bêtise dem tëdd nelaw mu ne wa mais amène la moi parce que xalé yi daju bari ak ak yow li nga daj depuis demb je vais lui tirer les oreilles voilà daal di wax loolu amicalement ma dugal ko ci auto ana Pambay pambe anam at ak suma frère bële sama frère bi toog ci kanam taxi la man ma tok ci ginnaw ak xalé bi ñi tok il était 16h30 mu ak journalu wolof bu El Hadj Assane Guèye bu rff ouverture journal rek waa ji ne waaw alors y a du nouveau doomu Mame Makhtar Guèye bu Jamra bi disparaître woon voilà légui ñi jox cadeau le lieutenant Diassé djum jàppaleen tur bi porte-parole de la police défendant naa am na lu bees lu lieutenant alors bismillah. oui bon c'est pas un enlèvement hein. enlèvement ça se voit qu'il ne s'est même pas donné la peine de lire ma déclaration de disparition ce n'est pas un enlèvement hein. eh bien en tout cas j'ai nañu un appareil de euh, géolocalisation GPRSI. vraiment on a mis les bouchons doubles géolocalisé nañ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 Néma xam nga combat de bari il faut épargner ta famille sa fille comme que te elle est passionnée de série S waxtaan naa suma jabar ay domam mok sa dom ñoo xawa a nga jox ma ko bourse aux Nations Unies ko New Jersey mu jangam ñu daal di jël photo Baba Aïda ma jël photo bi dugal ko Facebook fa la piéger goor jigéen ñi nag ak bàjjenu goor jigéen ñi ma ne ah na ngeen ma ñaanal Baba dara vraiment dawal na yërmande sama doom bi ciow topone ndax ay fenu le lieutenant Diassé Dioum Diassé tu m'excuses hein, mais li nga wax c'est un mensonge d'ailleurs sax tu as été limogé après cette bêtise alors mané bi lieutenant Diassé Dioum ne police ko retrouvé té muy ay fen euh, léegi Baba Aïdara ne daf koy yóbbu alors ñaanal leen mako dal def na lu rafet non la wax ci réseaux sociaux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

elle n'a jamais été euh, euh, retrouvée dans une auberge par la police à Yfenla. je l'ai dit et je l'assume Sankar, ci dara deuxièmement Gambi bu Guy gii dem elle n'a jamais voyagé de sa vie Moussou, quitté le territoire national Je leer na góor jigéen Je Cheikh Yirim Sek. yow mi top di reprendre à ton compte les diffamations et les affabulations de góor